dikkati naa moo sall ngaari lam tooro burke de ku mu tànn l'enquête quotidien naan man xanaa amadou vox populi naan man président Macky Sall tànn na waaye tam ma ngay layal la nga xam ni moo tax mu tànn tribune yéen a kaay naan kon moo taxit bennoo bokk yaakaar nee na tasar xam nga kaasu weer boo jël fukkeeli état sànn ci suuf tribune naan man bennoo ko raw ci tasaaroo le mandat naan kon tegal foofu sa loxo ma ñëw xam nga palais présidentiel bee nga xam ne sénégalais yépp ko bokk foofu de lañ doon teesantee coowal bennoo bokk yaakaar la foofee ñu tànnee amadou ba yéene kaay naan kon foofee it la bennoo bokk yaakaar tasaaroo critique yéene kaay naan kon ñu tabb Amadou Ba moom Amadou nag mu am téeméer juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci fan ngir nag yey noppuk sénégalais yi fëgg dënnam naan leen man la Amadou Ba doomu parcelle man la président Macky Sall tabb man ngeen war a woteel ngir ma wuutu ko 2024 direct nitu naan kon président Macky Sall daal soo am gii Sall du ko réccu tànn na koo xam ne na code général des impôts mooma groupe consultatif 2014 ba 18 mooma eurobond yi mooma performance bu Sénégal ci doing business Amadou Ba l'observateur naan kon xàllal nan ko yoon wi moom Amadou Ba le soleil yéene kaay naan adeet moom lañ tabb kay moom Amadou Ba l'exclusive yéene kaay naan kon président Macky Sall tabb nga ku miin defet waay président Macky Sall tabb nga koo xam ne ku mu langool parcelle am na ca defet tabb nga koo xam ne nag buñ doon tànn ña njiit Benno Bokk Yaakaar du ca bokk ndax moom militant vingt-quatrième heure la yéene kaay bi mel ni ku naan kon sa choix baaxul sur soi naan maan moom Abdoulaye Daouda Diallo daal ci patu la def ci choix président Macky Sall bi ma naan acam moom mi nga xam ne nag Harouna Jamoo ne ci ginnaam Abdoulaye Daouda jàlloo soo moytuwul nag dana bàyyi Benno Bokk Yaakaar fayal laaxu turbine yéen a kaay naan man Benno Bokk Yaakaar moo tasaaroo Aly Ngouille Ndiaye daal nay génn ci gouvernement bi fas yéene nag samp ndëndam janoo ak ka sàll ngaari a samp yéen kaay bi naan man maam booy jaawo moom it boo moytuwul mu daal di beruk daaraam donte maam booy jaawo sax nag ma nga ubbi asporox ndollu ngir nag ay négociation war a am Abdoulaye Daouda Diallo war a taxawal ab partem bu yees di pee ko APR authentique politique le peuple quotidien naan ñii bu ñuy siisu ñeneen ñaa nga naan Amadou yow la ñu àndal Mamadou Talla nee na président Macky Sall noonu la Mansour fay ànd ak président Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr ànd ak président Macky Sall le ak actu naan maan Sall day tabb Amadou Ba fi sa son ci moom donte Aly Ngouille Ndiaye dem na Abdoulaye Sali Sall muy Sarr Abdoulaye Dieye nee ñu Sall yow la ñu àndal ñuy xaarandi nag lan la Abdoulaye Daouda Diallo ak Mame Boye Diao di wax tribune yéene kaay naan maan dafa mel ni Amadou Ba du wéet ci bi ndax Ousmane Sylla directeur général Dakar dem dikk nee na du jàppale kenn ku dul candidature bi président Macky Sall sampal leen moom maire bu Kédougou naan amul xalaat xippidoor fas yéene nag jàppale candidat bu président Macky Sall bii di Amadou Ba moom njiital mouvement FCP ne mi ngi woo waa Kédougou rawatina nag ña nga xam ne ñoom la bokkal Sénégal gii ngir nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ñu tabb Amadou Ba te bañ ca boole benn xalaat moom nu Younoussa Baldé ci turbine yéene kaay naan man ca Pikine it Amadou dafa mel ni la ñu sànnil xob Abdoulaye Timbo ak ñamu àndal ca APR bu Pikine naan Sall ngaari daal laataa muy tabb Amadou Ba xool na critère compétence ci wàllu mëninam ci liggéey bi xool na wàllu carrière xool na fonction yi nga xam ne am na ko te mu bari lool ci nguur gi te Amadou bun ko ca jox mu daal di cay génn moom Amadou Ba xool na ni mën na yeggali plan Sénégal émergent man na boole militant yi nga xam ne daal dina ñuy tasaaroo moom Amadou Ba dal na rassembleur la Benno Bokk Yaakaar bu Pikine ne lii moo tax na ñoom ci boppam mas na nañ ko waxte faatu fi mu ne ñi nga xam ne ñi ngi naan amadu Ba la ñu àndal terewul ca suuf bar na ñoo xam ne ñoo ngi ruumandaat am na ci ñoo xam ne moom paaka ci put moo tax ñu ànd ak Amadou xam nga Aly Ngouille Ndiaye dafa bàyyi waaye xaar leen yeneen i démission yoo xam ne war na am ci biir parti bi ndax nag luñ ci mënti waxit du ñëpp ñoo ànd ak Ba am na ñoo xam ne fi mu ne àndu ñoo moom te sañ ñoo wax mbir yi daal di jaxasoo ba maar day taali vox populi naan moo ne mën naa bañ a jaxasoo de ndax tey ji Abdoulaye Daouda Diallo président Macky Sall dina ko dalal maam Boye Diao niki ëllëg war na janoog taskatu xibaar yi moom bun Abdallah Jonn mayee pat Walf Quotidien naan tànn nan Amadou Ba tànn koo xam ne la muy ñàkk bari na wala Amadou la ko président maki sal woolu di ko teg ci élection lam cay ñàkk ëpp lam cay am ndam bu dee mës naa am ndam ci carrière politicien le point yéene kaay naan maan xam ngeen tabbuk Amadou gii dul yees de ndax nag ma jambal jaan ci téeréem gu yees gii mu daal di bind Macky derrière le masque ma ngay xamle ni nag amadu Ba lu ëpp ñaari at a ngi nii moom président Macky Sall teg ko gë daal di xamle ni Amadou ci bopp boppam moo ko nara a wuutu sàll ngaari lam tooro yeexantu géeg lépp doon xool ay gaam rek la waaye tabbug Amadou gii le point ne ma ma jambal jaan nee na président Macky Sall naroon na ko yàgg na tribune yéen kaay naan maan moo taxit tasaaroo am na ci biir coalition moom président Macky Sall waxtu yéen kaayub dee média bi naan maan gëm sa bopp day ña nga ca social ba Mamadou Gueye original ma nga ca taxaw ñetti téeméer ci tout tànk yoo xam ne xarfal na leen ca Parcelles Assainies la ko wër yéen kaayub dee média bi naan maan booba xale yaa nga ca Barsaga lu ëpp juróom ñaari téeméer ci doomu Sénégal daal dinañu yegg Espagne yéeni kaay bi naan maan ca suuf sa yëngu ca Maroc lu toll ci ñaari junni téeméer ñaar fukk ak ñaar ci doomu adama faatu nañ ca ca faatu gi nag am na benn sénégalais boo xam ne bokk na ca lu toll ci ñaari junni juróom fukk ak juróom ñeent ci doomu aadama it am cay gaañu-gaañu waa Grand Place naan maan Abdoulaye Sylla bu Écotran de ma ngay naqarlu la nga xam ne am na ci Maroc di woote nag solidarité ci askanu Maroc gi nga xam ne daanaka mook Sénégal ay seex lañu njiital club C50 PN naan na sénégalais Maroc te moom ci boppam fas na ci yéene jiitu di rafetlu it Sénégal ñemu yoon ni Maroc ngir ñu taxaw daar daar blessé yi Abdoulaye Sylla nga naan sénégalais yi nañu xool la am Maroc xam ne à tout moment lu ni mel mën naa am ci réew yu ne ba ci sax Sénégal nañuy jël sunu matukaay ci lépp loo xam ne am na xool na ñuy tabaxee waaye tam ci yenn anam lañ koy teg taxawal ab observatoire boo xam ne day daal di gàttandu lépp loo xam ne catastrophe naturel la defar campagne bu am solo ngir ñu yee askan wi ci lii bu amee premier secours naka lay amee naka la ñuy taxawoo daar daar ñi nga xam ne ñoo ci am gaañu-gaañu ndax nag catastrophe naturel yi Abdoulaye silaanaan naan ku ne war na koo mën a sóor ci dundam ne mën naa am tribune yéene kaay naan maan li am ci réew mi la kenn comprendre tul ca kër Mbay Faal xale bu jigéen bi amagul ñaar fukki at dafa ni faram nan bàyyinte far ba ñëw fekk ko ba ci biir këram jam ko paaka ci puut xale bi dar dar ba ci biti seen buntu kër laata sapeur yi ak wallu yaa ñëw abonné leen ci suñu chaîne xibaar yu wér te wóor